une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer taabati ahmad ibn abdallah qasinati wasanani anilai bâtiment plus import export si Touba mbokk ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàppaleen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag a mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay 60 ay grès poli italien sur 60 carreaux de haut ay grès italien tout genre venant d'Espagne 25 sur 40 sur damani am nañu ay produits jóge Inde 25 sur 37 wala yeneen gox ci àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaruwaañ 25 sur 37 lépp mu ci waaye nag mbokk ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am nañu ay ay ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak si leen bâtiment import export mi ngi si Touba Daaru Xuduus jàkkaarloog marché bi ah mbokk yi nee naa lumière décoration ngir seen chambre seen salon seen balcon liñ la si defal amul fenn waaye nag ay ventilation assortie de lustre ah xanaa nag moom lii lu bees la dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle de bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu mucc ayib ay lavabo commode miroir led da kenn ku dul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir seen kër seen waañ fépp daal si biir kër gi robinet yi yemb na waaye nag réservoir cinq mille litres ba cinq cent litres tànn sa bu la neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture jàppaleen ni ñooy le numéro un des peintures peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus mani moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériel yu xarala nee naa la suñu ventilation si mbooleem marque am na nañu ay windi 90 ay kulom tom kulom tom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine de douche chauffe-eau yi nag waaye nag ba ci gën a neex mooy automatique léegi la ndox mi di tàng même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Xudus jàkkaarloog marché bi bu ngeen fi accès jàpp leen lépp luy carreau sanitaire lumière

sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay jigéen ñi ci dunya jaaratulaay maam jaara waa kay euh, sama suñu soxna jaara yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di bég lool tey ci seen teewaay ndax nit ki boo ko yoree yar ko jàngal ko ba mu génn demaat dikkaat taxaw taxawaay bu rafet nii bépp taxawaay bu ñu fi gis rek bii ñu ko gënal ndax lii day day nekk suñu résultat yoo xam ne ah suñu borom moo nu ko baaxee. kon nu bokk ñaar sëñ Mouhamadou Moussa sëñ Mouhamadou Bachir mi ngi xam ne moo def jëf ju jii ba yiw yi yëpp génn ci di leen di ñaan sëñ Mouhamadou Mountakha tamit mu yàgg fi te wér lool ndax xam ngeen cofeelam ci daara ji waaye tamit di leen ñaanal suñu borom may leen ngeen gudd fan am wér gu yaram euh, mboole ñu ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi bitim réew ñu ngi leen di seetal suñu cant ci suñu. dongo yii dongo yi ngeen fees mooy maam jaar yi nga xam ne ñoo fi jiitu ba ñu fi am juróom ñëw juróom-benn at rek lañ am wala juróom-ñaar fe ñu jànge mokkal fi ñu yar leen fi ba ñoom ñëpp ñu dellu seen kër waaye ba ñu delloo tamit fàttewuñu benn yoon daara ji ñu def seen benn daayira boo xam ne fii lañ ko tàmbaloon sax daata ñuy dem waaye daayira bi képp ku jaar ci daara ji rek boo génnee da nga dugg ci biir daayira bi mu mel na ñoom ñu ngi ci biir daara ji ba tey taxawaay bi nag at yii yëpp rafet na ci njiitu sëriñ euh, diir ña nga sëriñ Xabaan Mbàkke nga xam ne ñoom ñoo leen di taxawu féete ñu ñun fa ñu waroon féete ci ñoom ñu féete ñu fa te ñu seet leen bañ doy ñu ñu soog leen a ak ñoom waaw ndax ñoom ñëpp ay jigéen kese lañ di ay soxna jaar waaye ñoom ñaar tax ñu bàyyi leen ci daayira boobu mooy suñ taxawaay da caa waroon a fés ñu continuer di leen gunge di leen jàppale. te loola suñu liggéey bi taxam mënuñu ko ñu boole sëriñ sëñ xabaan mii toog ak sëriñ jili ña euh, mbay ñu leen di xelalal di leen gunge ren moom dañu cee gën a bég bu màggal jotee dañu ñëw ci daara ji di berne day dem siyaare sëriñ Mouhamadou taxaa dafa yóbbu seen addiya di dem ci sëriñ Isaaxa Mbàkke sëriñ Basiru ba ci sëñ Moussa Nawel di ko di ko siyaare di yóbbu seen i at yi di boole njaboot gi ci biti ndax yar bi dafa war a continuer njàng mi dafa war a continuer te bu ñu leen bàyyee kenn ku ne dañ dem ci sa gox rek mën naa am euh, dara dana ca wàññeeku waaye ci biir mbootaay googu lañ lañu daje di ci jàngale di gën a góorgóorlu seenum njàng di ko yokk di gën a góorgóorlu tamit ci seen liggéey bi nga xam ne xam nañ ne ëllëg si bi seen liggéey dong lay mën a doon. dama leen ko naan wax bi ñu fi nekkee ma leen xool leen bu baax seen bopp te góorgóorlu fii ku fi nekk rek yéen la fi nekkal danañ leen di gunge rek. danaa am jamono dañ naan général am maam jaara la directeur des jaara ñu ne jàngalekat yi maam jaara tàmbali nañ ci jàngalekat yi seen fukki morom ak juróom ci daara ji yéen a nekk ñoom fii ci daara ji ba fiy jàngale te loolu firnde la ci waaye ren dañoo def lu am solo daara ji dafa yaatu yaay daara yi fu ne la ñuy jógee di ñëw ci daara ji. ah di seeti seen seen i njaboot démb day def nañ lu rëy rëy loo xam ne ñëpp dañ cee mooy képp ku ne ci daara ji ak foo mën a nekk fekk dañ la fa jox la ndéki jox la añ jox la reer ñoom ñoo ñëw fi wax ma ko fi ñoom ñëpp ñoo ne seede ko ku ma wax ñu ne ah moom kan soxna si ba la ma doon lu sax ngir jëm ci loolu ñu doon ko euh, wax ay mbokkitaal bi ñu jàppale ñu ci ba mu ñëwee fekk na yéen joxe ngeen añ ba noppi te xam nga ni kër gi mel nii macha allah waaye ñoom ñëpp nañ joxe ngeen ndékki joxe ngeen añ joxe ngeen reer defar ngeen daara ji ba mu set wecc ci suba teel waaye loolu moo leen war si daara ji seen daara la ñu leen di ñaan di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal fu ngeen bëgg àgg yàlla ngeen ko weesu te am nañ ci yaakaar lool ndax bëgg ngeen soxna jaar bëgg ngeen daara ji bëgg ngeen ñi fi nekk te loolu mooy li nga xam ne moo am solo nañ bu la jàngalee yar la nga ëlbatikuwaat def ko si sa xol ba foo ko rek day mel ne rek yow rek tubaarkàlla macha allah loolu dafa am solo ñu ngi sant sey gërëm bu baax a baax dañuy jàngalante ci biir di yokk seenum jàng yokk seen xam-xam ba noppi tamit di def ay ziar yoo xam ne ban naawel dañuy dem ziar ma astawaalo dem seen Mouhamadou Mountakha ak yeneen activités yoo xam ne ci biir daara xëy na ñoom kenn ci ñoom dana dana dugg leeral seen taxawaay dana ko leeral waaye liñ ci xam daal mooy. lu ñu am def ci ci daayira lu ñu am def ko ci tey tamit ñi ngi ci biir réew mi wala ñi ngi bitim réew tamit maam jaare yi fu nekkoon ne ci ci bitim réew te kenn ku nekk dañoo jokkoo ak ñoom ànd ak ñoom jàppoo lu ñu am dañ koy def ci daara ji waaw macha allah loolu moo leen war ndax daara ji seen daara la sant nañ bu baax teewaay ñëpp neex na waaye seen teewaay moo ci gën a daan nañ andi ay machine jumtukaay ci daara ji ci centre de formation nañ fi ay machine bu baax yu bari ndongo daara yi maam jaare ci ñaw ñu sas leen tamit ne daara ji dafa war ñetti weer yu nekk ñu désinfecté ko ba nga xam ne lépp luy mbóor yeeg yëf yëpp day day day day lool ndax xam nga ne fu mbooloo daje moom loolu dafay bari produit yi ñoo ko jënd ba am doy nga xam ne ñetti weer yu nekk ñu pompe kër gi yëpp daara yëpp ba mu àgg te ñoom ñi ñoo joxe loolu muy lu am solo euh, bi école ubbee ren tamit wala bi ñu bi tëj daa bëgg a tëj daaw dañoo laaj ne lu ñuy barkeelu ñu ne fii de wàllu madaar ak ak setal eau de Javel ak Madar moo fi manqué ñu ne nañu jox nombre at mi yëpp ñu daal di koy calculer weer ñaata la soxla ci Madar eau de ñu def ko ba muy at ñu wàcce fii lu ëpp loolu ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw ci daara ji wàcce fii loo xam ne ñun laajatuñu kenn eau ak ak ak Madar. waaw moo tax euh, li ma waxoon sànq laa dellu rek ndax ñoom ñi ñoo ci suñu yaakaar ci côté boobu ndax soxna Jaara ci biir ñi leen di yor di leen yar di leen jàngal waaye bu ñu demee ak seen dëkk yu fasantikoo buñ bu ñu loon ni jàpp ci rek duñ leen mën a téye te ñoom fi ñun ñëpp dañ leen a téye ñun ñëpp léegi ndax ko loo ciy wax rek dangay ngay woo ku mel ne jëwrin ak ñi nekkal ci daara ji ne waxal ma maam jaar yi nangam jottali ma nangam yaa ko def ci seen groupe bi kenn kon daal ci taxaw ci sansa mu daal di gaaw lool ba nga ne xale yi maam jaar yu ndaw yi mujj a génn sax ku ci génn ku nekk rek da ngay dem jokk ci daayira bi te loolu moom mooy mooy li nga xam ne luy wéeree luy sax la ka fi njëkkoon ba suñ joon yàlla tey ku ci génn ku nekk rek yaa ngi jokkoo ñoom ci benn buum goo xam ne kenn si ñoom du leen rëcc te yitte jiñ ci def itam yitte ju mat sëkk la ba bitim réew xale yi génnoon yëpp boole leen ci groupe yi ñu ñu ñu ñu albatiku di liggéey soxna jaar ci ci kon loolu dafa am solo am solo goo xam ne li ma ci dénk rek mooy yéen yemu leen nag ñi ci des soxna jaar lañ leen tuddee. ngeen am tawféexu ñëw ci daara ji jàngi fi ngeen nekk fi nag ci nekkin bu rafet ba ba suñu borom may leen fi lim leen may ngeen bàyyi ko fi dem feneen damay wax ne li ngeen am ku man man alxuraan mokkal ko mbaa ngi jàng ko rek man ci dara wala nga jaar ci daara ji yow diplôme bi gën a kawe yaa ko am diplôme bi gën a kawe yaa ko am bul ñee kenn bul xool kenn ndax ñëpp dañ lay ñetti xamoo ko ñëpp lay ñee da ngay gis ko naan man de ay bu ma nekkaatoon xale ba dem ci daara maam jaare wala bu ma nekkaatoon xale ba dem jàngi alxuraan kon ñëpp li ngeen am ñëpp mënuñu ko am suñu borom yéen la ko jagteel kon bu ngeen génn mukk ba gis lu lu lu mu rëy rëy rëy ci bët bu leen xool loon loola lu rëy la ndax ña ca nekk xëy na ña ca nekk rek mu mel ne lu neex la ci ñoom fekk loola dañ caa nekk waaye bëgguñu ko ba ñu xamul leen amuñu leneen. waaye ku am alxuraan mokkal ko ma nga jàng ko jaar ci kër gu sell gi kër soxna jaar ah loolu yombut foo mën a dem fu nekk rek yaay kilifa foofu na ko xam bu baax bu leen kenn soppi ndax nit ki dafa war a xam boppam xam sa bopp mooy li nga yor ñëpp dañ la cee ñee da te duñ la ko sax wax waaye dañ laa ñee ndax dafa yombut yeen la ko yàlla taw feexale kon dee leen nekk ambassadeur fu ngeen mën a nekk rek. ambassade bi maam jaar ak daara maam jaar ak poroxaan te xam ngeen ne yéen dañ leen ñëpp leen sopp ñëpp dañ leen sopp dañ leen a bëgg fépp nag kon nag cofeel googu am na la ko waral kenn ku ne fa nga dëkk am nga fay mag am nga fay rakk am nga fay yaay nangam waaye nañ la fay def yow bokkut nañuy def ña ca des kon loolu mooy cér boobu yàlla ab cër da koy cëral ko ko neex da ngeen téye seen cër bi nangu ko téye dox ak moom xam ne yéen a ëpp diplôme yéen ëpp lépp yéen a ko ëppale ci ci ci ñeen ñi seen i maas seen i maas yéen leen ëppale lépp te kenn ku ci nekk war nga maas nga dendal nga dugal leen ci lool dimbale leen ndax bu leen fàtte ne sëñ Moustapha dana woon daara ji da koy sos andi fi maam jaara yi jële leen ci daayira yi comme ci euh, kuñ ci defar ba nga ba nga ba nga euh, jóge fii soo génne dem di defare fa nga jóge dama ci daayira yi dafa defare kon yéen ay ambassadeur ngeen daara ji moo leen moo leen moo leen moo leen tasaare rek ngeen dem ci gox yi war faa defar da ngeen jàpp loolu bu baax ambassadeur mooy ki nga xam ne dem fenn teewal fa am réewum kon ngeen fu ngeen nekk da ngeen fi teewal daaray maam jaar kon ngeen defarwaat bu baax yar bi mi ngi ci yiw gaa ngi ci wax dëgg yàlla loolu yàllaa ko def de bala neen xale yi da ngay gis ko xam ne day léej lool mun léej ci sa kanam nii ci daara ji nga koy coow di kii dafa léej dafa léej waaye bu génnee ba nga xool da xam ne kii suñu borom def na ci moom loo xam ne wax dëgg yàlla loola bu génnee rek day doo sëkk ci lu baax ci bëgg lu baax ci ak yiw kon sant leen seen borom sant leen seen turandoo te ngeen góor bu baax ci seen bopp te tey defar. Euh, ñu yemal foofu suñu kàddu rek di leen sant ci xéewal yi xéewal yi moom dëgg yàlla moom bëgg nañ ci daal bëgg nañ ci lool ci lañ gën a ba ci bépp xéewal boo xam ne nag tey jot nañ ko. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp di jiital di jiital soxna Maama Deme muy bàjjan suñu bàjjan suñu yaay mën nañu ni mooy suñu lépp parce que moom lañu xam biñ fi ñëwee te tamit lépp rafet macha allah euh, may wax ne Mame Diarra mi nga xam ni moo ñu fi boole du hasard ndax euh, yàlla deful dara muy hasard. nit ñi fi boolee comme si boo bokk nit ndey ak baay sax comme nit ñu boolee nii boolewul nit ñu bokk ndey ak baay nii ba ñu fekkee day mel ni ñoom ñoo bokk lépp nga xale boo xamante nii sax daa am euh, koo xamante ni am daa am loo xamante nii sax du ko def boo ko waxee dara sax mu rusee ci wàllu soxna jaare yi nga xam ne wàllu sas yeeg yëpp macha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax tamit ne mbooloo mi maa ngi waxaat ne nañ yokkaat laxasaay yi gën góor góorgóorlu bu baax a baax te xam ne ñun ñii duñ n'importe qui ñu xam ne ñun ñii yàlla dañoo jagleel te jagle gi mooy tudd Maam Jaara jàngee ci daara Soxna Jaara du du du yombul daal du ñëpp a ko mën a am am nañ suñu morom yu nekkul ci biti tudd Maam Jaara te ñëwul ci daare ji kon nag buñ fi ñëwee dañoo war a xam ne ñun chance moo ñu fi dugal ci wëlbatiku ci chance boobu ñu xamaat ni ñun ab sas lañ ñun ñii ab sas lañ ba ba tax na ñun ay élément Mame Diarra ci kaw suuf ba tax na bu màggal Porokhane jotee maa ngi dégg nga naan parents yi ñu ngi naan dañuy joxe lekk billaahi loolu lu tuuti la bàjjan ci ñun wallaahi lazim lu tuuti la li ñu bëgg def ci kàttanu suñu borom yàlla nañu fa yàlla yeggale bi nga xam ne Aïda Ndiaye Badaloo mi nga xam ni ci wàllum berne suñu idole la ci parce que moom lañ bëgg a roy te nekkutu ci daara ji ñu jël suñu initiative que ni ma parents d'élèves yi dal ci daara ji pourquoi pas ñun Aïda nekkatuñ fi lan moo tax mënuñoo togg di leen benneel lépp fu ñu fépp mu leen waroon féete ñun mu féete leen fa moo waral ba tax na bëgguñu parent d'élève bu fi ñëw ngay euh, wàllu xiif ak yooyu noonu nga koy nga ko fi nga fi am problème boobu moo tax ñuy wax ne ngeen dolliwaat ñaan bu baax a baax a baax a baax a baax te incha allah foofu lañ bëgg egg ba raw ko ngeen ñaan bu baax a baax. rahmatulah maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di jiital ci ziar bi sunu bàjjen bii toog di soxna Maawa. di ko ñaanal yal na yàlla guddal aw fanam lii lépp moom la lii lépp moom la moo ñu yar tette ñu teg ñu ci yoonu njub ba kenn ku ne fa nga teg sa tànk ba dëkk fa fañ la teg teguñu ko sa morom kon bàjjen gàcce ngaa laama yàlla ak sëriñ Tuubaa mi am fay yàlla nañu la fayal jàmbaar nga ndax ay gone ku leen yor di leen tette kenn ku ne nga jaarale ko ci yoonu jub ku nekk ak jikkoom ngay teete di mocc ba yàlla def ni ñii tey ñu àndandoo ñun ñëpp jàkkaarloo di la delloo njukkal kon gàcc ngaa laa ma bàjja yàlla na yàlla guddal sawfan ndax lii lépp yow ànd bi ñu ànd dañoo am rek ku ñu ku ñu jiite moo tax ñu mën ko waaye bu ñu amoon tuuti lu ñu fa kastal duñ ko mën kon yow lañ koy sante bàjjan yàlla na yàlla guddal saw di ziyaare sëriñ Jiil ak sëriñ Xabbaan Mbàkke ñoom kenn du ñoom ndax yori nit dafa metti yor ñoo xamante ni kenn yam ceeg sa morom jikko dafa metti nga fexe ba di leen di tàggat di leen indi di leen iri bañ dem bay tollu jikko kon yéen kenn du yéen yàlla na leen yàlla sàmm yàlla def leen ngeen ni mag mu am lislaam mag mu am ñam ba ñëpp ci seen dund ji ñu xaj ci barke Nabil Moustapha ziare nañ soxna jaar yëpp ndax lii kaay baax am na waaye ku nangut doo ñëw te bi ñu wootee ñëpp dikk nañ kon soxna jaare yéen tamit jaaraama di leen digal ni leen lii buñ ko bàyyi yokkaat laxasaay gën a liggéeyal soxna jaara ndax ñun amuñu fayam de dañuy jéem nii rek ki nga xamante ni moom lañ la dippee nga yaakaar ko ba yàlla def la nga jaar ci daaraam ba ñëw toog fii fayoo dara dara waru la ci ñun dañuy jéem dañ leen yokkaat laxasaay te góorgóorluwaat te doonaat bay faalu maam jaara su ko defee rek yàlla dinañ jàppale te dinañ jëm kanam ñu ngi leen di jaare yéen ñëpp di tuub ci kàddu yi lu ci dëng rek ñu xam ne ci ñun la lu ci jub rek ñu xam ne ca yàlla la jërëjëf bàjjan ziare nañ la bu baax kontaan nañ ci yow bu baax yal na la yàlla def mag moo xamante ni nga yàgg suñoo jiite yàgg nekk suñu kanam ndax lépp luñ am ba toog fi yow tey jii lépp jikko yëpp nga yemale woon. bu doon buñ la indilee koo xamante ni nii la mel wala nii nga ni kii kat war nañ koo delloo ay waajuram yi waaye dangaa boole ñëpp ñëpp nga boole yar leen ci jikko ji nga yor indi leen ci ba tax ñu lii lépp taxaw kon sant nañ la gërëm nañ la. soxna si bu baax a baax di nuyu xale yi nga xam ne ñun dañ leen a fekkoon ci daara te ne daar ji yaakaar naa ne lii moom waxoon nañ leen ne man bi ma ñëw fii soxna yi laa fekk ak mag ñi sax xam ne fekkuma leen fi waaye dañuy daje ci daara ji ñuy toog ci kër gi fii lii li ko commencé benn benn at rek la ñu xëy ñu toog fii liñ doox rek añ ñi day naaj torop ndekki day day naajee ñëw reer yi day guddee ñëw te du maase ñu màggal ba pare ma woo soxna jaare yu ñu may ne waa soxna jaare mu ne a ah, mu ne ñun duñ def benn benn jël benn solution ñu ne ban solution la ñu ne léegi dama ñoo bëgg ñun at mu jotati incha allahu rabbi su fekkoon na ab laax la ñu koy togg ci daara ji sax di ko jox yaayi soxna jaare yi ci kër gi ñu koy lekk ñu ne ah loolu day soxnaaw bu nga ko waxee dinañ ci sawar ndax fii lépp lu fi war rek ci ñun la ma ne ah bu dee comme noonu la de nañ ko def te jaayante ci rek te xam ne incha allah rabbi dana baax bu soobee yàlla. daa an moom ma ko waxee noonu sëñ xabaan mii xawuma ko woon de moom xawuma woon de moom sëñ jili ma dugg si biir daara ji di màjjaal ne dañuy togg su fee dañu am te dañu am luñu manqué sëñ xabaan mi yëkkati ñaari ju jox ma duma ko fàtte de. sëñ Jili Mbay junni jox ma ma dugg si yaay maam jaaree ci kaw fii yëpp keroog dama dajale ba am lu man foogoon naa sax keroog jour boobu te barke Serigne tuuba Mbacke laa la génne ne la dama dañoo naroon togg macaroni kese mais dañoo mujj dem ci dara ga am fay mujjee fa am ñaari xar te ci biir daara ji lañ ko maa jaar barke maam Serap fa billaahi wallaahi taala dañoo mujj am ñaari gàtt. ñëw togg ko fii ay ay ay macaroni na jox ko nit ñi ba diggum nëgg nag moo sax fii ba ñu fii daane ay nag nag kon newoon naa leen lii moom du mas a hasard ndax soxna jaar lépp lu ci waay def rek man sama rakk ngi fi de ba fii ñëw yàgg na lool waaye duñ xoolee affaire bi ni mu demee rek ñu xool situation bi ni mu demee rek dañu daal kenn ku ci nekk ñu jël ci laxasaa yu mat a mat a mat yaay soxna jaar yi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk fii ñoom ñëpp saa bu màggal gi ñëwee kenn ku nekk dana jaayante ab jaayanteem ñu dikk indi ko ñu boole ko def ko ci soxna jaaree def kon suñ demee tey bu njëkk ci macaroni boo xam ne amul dara ñu dem ci ba ci macaroni boo xam ne am na ñaari xar tey ñu yeew ay nag kon dinañ yeew ay gileem incha allah rabbi barke Serigne Fall dinañ yeew ay gileem te lii moom li ma doon wax rek ñun ñëpp amul tànk ginnaaw tànk kanam rek laam am te maa leen wax ne fii incha allah bu nu yàlla mayee te ñu fekk ko da ko lépp lu ci waaye def ren di nga ko def lu déwén incha allah mat fukkam di nga ko ci def kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen bu baax a baax. saadix bu sax ci ndigal ngir jaaratullaa une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer taabati ahmad ibn abdallah qasinati wasanani anilai bâtiment plus import export si Touba mbokk yi ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàpp leen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol ay sol grès italien 40 sur 40 30 sur 30 60 ay grès poli italien sur 60 carreaux de haut ay grès italien tout genre venant d'Espagne sur damani am nañu ay produits jóge Inde 25 sur 37 wala yeneen gox si àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaruwaañ 25 sur 37 lépp mujj neex waaye nag mbokk ñëw leen ngeen découvrir sunu ay lumière am nañu ay contact dernière ay spot seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak si leen bâtiment plus import export mi ngi si Touba Daaru Xudoos jàkkaarloog marché bi ah mbokk nee naa lumière décoration ngir seen chambre seen salon seen balcon liñ la si defal amul fenn waaye nag ay ventilation assortie de luxe ah xanaa nag moom lii lu bees la dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle de bain bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu mucc ayib ay lavabo commode e mu tàkk lii nag moo kenn ku dul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir seen kër seen waañ fépp daal si biir kër gi robinet yi yemb na waaye nag réservoir cinq mille litres ba cinq cent litres tànn sa bu la neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture jàpp leen ni ñooy na numéro un des peintures peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus mani moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériel yu xarala nee naa la suñu ventilation si mbooleem marque am nañu ay windi 90 ay kulom tom kulom tom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine de douche chauffe-eau yi nag waaye nag ba ci gën a neex mooy automatique léegi la ndox mi di tàng même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen découvrir bâtiment plus import si Touba ñoo ngi si Daaru Xudus jàkkaarloog marché bi bu ngeen fi accès jàppaleen lépp luy carreau sanitaire lumière peinture duñ ca morom boole mbokk yomb ba tax ma ni bâtiment plus import export notre force c'est la qualité. Ah,